samay adversaire dañ ma ragal tu vois du ma tudd tur te man du ma tudd tur tu vois samay adversaire xam nañ seen bopp bu baax mais dañ ma ragal non déglul ba léegi déglu déglul ba léegi waxuma la tur tu vois man damay bañ ku may te làmbu rek bu jeexee rek jéena yaa may dégg mais dama ne la samay adversaire dañ ma ragal fii ba suba duñ ma jël wax ji mën naa nekk fii ñuy ratatati rek mais ku ku tëdd si sa ñeg boo tëddee sab lal ba yeewu ba tëdd xalaat ne rërëg di di nga bëreeg rërëg sa sa déglu rek sa waaw mais mooy li ma la wax xam nga làmb dafa bëri ay tapet ñooy yàq làmb ji suñuy morom nañ ñëw ñu bëri suñu biir mais ñoom ay ragal nañ mbir mi lañ koy wax te dee mbëri ñu si balance ñoom ñoo ko yóbboo seen bopp ndax ay ragal nañ ay tapet nañ ñëw lañ ñu bëri seen biir moo gën ay ana balance yow tey jii man lan laa xam nga lenn lenn laa nanguwul quoi lambay sa métier yow ñu ñew wax la benn mbeur ah mbeur mom lu mu dédé di ngi ci am 60 millions wala 70 millions yow bu fekkee làmbaay sa métier doo ko jël bëre ngay tok bay année balance tax gis nga mbeur nu mu mité dépense mbeur gis nga nu mu mité tey gis millions yi nii nga xey bay muy dem mais lolu mom luma kay mon mom lolu moom loolu moom ah, ko def wa dëgg yalla nak duggu ci caaree duggu ci ko duggu du génn.